الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
الله asalaamaaleykum mbokk mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen di leen gërëm di leen sant yéen ñi am yittewu di ànd ak ñun saa su ne ci waxtaan yi ñuy waxtaan ak yéen dañu dippee ko kàddu gu sell gi te muy waxtaan yu am solo di waxtaan yu am njëriñ ci dundug doomu aadama ndaxte waxtaan la yoo xam ne day sukkandiku ci téere bu sell bi di biibul bi di kàddug yàlla sunu boroom kon mbokk yi ñu ngi gërëm di sant yàlla moom mi nga xam ni moo ñu baaxee ba ñu mën fee teewaat tey jii mën a wéyale waxtaan yi nga xam ni moom la ñu tàmm di def ak yéen cant ak ngërëm ñeel na ko aha ndaxte moom mooy ki ñuy sàmm moom mooy ki ñuy aar moom mooy ki ñuy gindi moom mi moom mooy ki yor loxoom ci suñu dund ba saa su ne li ñu yittewoo ci lu baax ci lu sell ñu mën ko jotee ci moom kon cant ak ngërëm ñeel na ko mbokk mi yow mi may déglu maa ngi ñaan euh, yàlla sunu boroom defal la tawféex yàlla sunu boroom wàccee ci sa dund ak ci sa dundu njaboot jàmm bu doy sëkk sëkk sëkk kon tey jii dellu si waat nañu fii di waxtaan ak yéen ci sunu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi tey jii nag waxtaan bi nga xam ni moom laa bëgg a waxtaan ak yéen maa ngi leen maa ngi ko tibbee ci kàddu yàlla gi te waxtaan bu am solo la boo gisee ma tànn ko tey jii ngir waxtaan ci ak yéen dafa fekk ni dafa doon mbir moo xam ne li tubaab di wax actualité la dañ ko war di fàttaliwaat doomu aadama yi dañ ko war di waxaat doomu aadama yi ndax suñu diggante ak yàlla suñu diggante ci suñu biir lépp ci loolu la war a tegu mbokk mi dinaa jàng ci téere bu sell bi ci injilu Macë dinaa jàng ci téere bu sell bi ci injilu Macë ci saar ñaar fukk ak ñaar la ko dalee aaya fanweer ak ñeent ba ñeent fukk dinaa ci jàng waxtaan bu dox suñu diggante suñu sang bu tedd bi di Seydina Isa Yeesu Krista ak ay kilifa diine yu fa newoon ca jamono yooya lii lañu téere bu sell bi wax mu ne ginnaaw gi pharisien ya yëg nañu ne yey na saducien ya kon nag ñu daldi daje noonu kenn ci ñoom ka nekk xutbakat fexe ko fiir mu laaj ko maanaam mu laaj Seydina Isa Yeesu Krista kilifa gi ban digal moo gën a màgg ci yoonu Musa Yeesu ne ko na nga bëgg Yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa kàttan bépp ak sa xel mépp loolu moo di njëkk te ëpp ci li yàlla santaane te ñaareel bi moo te ñaareel bi mel ne moom moo di na nga bëgg sa moroom na nga bëggee na nga bëggee sa bopp ñaari ndigal yooyu tënk nanu yoonu Musaa bépp moom ak waxi yonent yi lii la yàlla sunu boroom andi ci kàddu bi kon mbokk mi yow mi may déglu ñu gis ni fii Seydina Isaa Yeesu Krista dafa toog ak ay taalibeem di leen jàngal noonu mu am benn pàcc ci kilifa diine ya nekkoon ca jamono yooyu te seen groupe boobu ñu leen doon woowee ay saducien ñu ñëw ñoom it ngir jéem koo fiir jéem koo lalal ndëgg sërëx waxtaan bi Seydina Isa doon waxtaan ak groupe kilifa diine yooyu di ay saducien mu ngi jéemoon ci ndekkiteel ci allaaxira ci ëllëg waaye mu wax leen fa lu leer naññ mu effacé lépp loo xam ne jàngale bu bon la woon wala ngëm-ngëm bu teguwul la woon ci kàddug yàlla ci seen xalaat waaye ñu ne ñu booba am na beneen groupe kilifa diine boo xam ne ñoom ñu ngi toog di déglu ñooñu nag ñoo tudd pharisien ya kilifa diine yooyu ñooñu bi ñu gisee ni Seydina Isa Yeesu Krista kat yay na groupe bu njëkk boobu di ay sadducéen ba ñooñu noppi xamatuñu lan la ñuy wax ñoom ñu ne léegi nag ñoom dinañu ñëw wone seen xam-xam tëggal ko ndëgg sërëx ngir mu man caa daanu téere bu sell bi nañu yow mbokk mi ñu yabal ko kenn ci seen borom xam-xam yu gën a màgg ya ab xutbakat mu ñëw gis seydina isa yeesu krista ne ko man de dama bëggoon nga wax ma ci ndigalu yonent yàlla musaa yi ndaxte ñoom yawut yi ci téere boobu lañu tënku dama bëggoon nga wax ma ban moo ci gën a màgg ci ñaar ci ndigal yi nga xam ni yàlla jox na ko yonent yàlla musaa yépp te ñun ñu war ko topp ñun bani aadama dañoo bëggoon nga wax ñu ban moo ci gën a màgg ci lu amul benn sikki sàkk lu amul benn hésitation seydina isa yeesu krista daldi ko tontu na nga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa kàttan bépp ak sa xel mépp doomu aadama bi dafa bëgg war a bëgg yàlla boroomam ak xolam bépp ak kàttanam bépp ak ruwam bépp ndaxte yàlla mbëggeel kese la te lépp lu muy def jëmale ko ci doomu aadama bi mbëggeel kese la kon suñu diggante ak yàlla sunu boroom leneen waru koo lal lu dul mbëggeel xam nga nag boo ne dangaa bëgg yàlla ak sa xol bépp ak sa kàttan bépp ak sa ruu bépp maanaam danga ko bëgg ak sa jëmmal maanaam sa jëmm yow daal mbëggeel kese la téere bu sell bi day wax ni bu sa mbëggeel ci yàlla sunu boroom tolloo foofu la muy tekki mooy ne dangaa jël sa jëmm bépp jébbal ko yàlla sunu boroom ngir moom mu koy jëriñoo waaw waxuma ne doo ko tooñ de waaye dina néew lool lool lool loo ko tooñ te saa yoo ko tooñee sa rongañ génn saa yoo ko tooñee ndax xaru xol dugg la ndax mbëggeel ndax cofeel bi nga xam ni moom nga am jëmale ko ci yàlla sunu borom waaw bii mooy ban façon mbëggeel mbëggeel boo xam ne nee nga bëgg nga yàlla sunu borom ak sa xol bépp sa kàttan bépp ak sa ruu gépp te man ngaa xëy suba ba ngoon jot sa xel du dem ca moom boobu mooy ban façon mbëggeel bii mooy ban façon mbëggeel mbëggeel bi nga xam ne nee nga bëgg nga ko ak sa jëmm bépp waaye saa soo xëyee suba ba ngoon ci li ko naxarin rek ca nga ne boobu mooy ban façon mbëggeel bëgg yàlla sunu boroom la muy tekki mooy ne dañoo baa foofu ay tereem te nekk ci ay mbëgg ay ndigalam te waxuma sax ni jéggi na sax ni jàng rek ne lii la ma yàlla sant kon dinaa ci tënku waaye wéy na loolu weesu na loolu dañuy dem ba tënku ci la nga xam ne àgguñu fa waaw àgguñu fa waaw lépp ndax mbëggeel bi nga xam ni ak cofeel bi nga xam ni am nañ ko ci yàlla sunu borom yow mbokk mi lii la ko seydina isa yesu krista wa na nga bëgg yàlla ndigal bi gën a foor bi ëpp doole mooy na nga bëgg yàlla sa borom yow doomu aadama bi kon mbokk yi dinañ déglu tuuti cant ñu dellu si waat ci waxtaan bi jërëjëf
بابا أنا عطشان من نهرك رويني بابا أنا تعبان من غيرك يشفيني بابا أنا عطشان من نهرك رويني بابا أنا تعبان من غيرك يشفينا قضيت عمري نوح مليان قلبي جروح قضيت عمري نوح مليان قلبي جروح والمين غيرك أروح أحزن الأذان ينسيني بابا أنا عطشان من نهرك يرويني بابا أنا تعبان من غيرك يشفيني ما لي غيرك يسوعي يمسح لي دموعي لا ما لي غيرك يسوعي يمسح لي دموعي خطيتك بضلوعي بردان kon mbokk yi ñu dellu si ci waxtaan bi nga xam ni ci lañu newoon seydina isa tontu na waa ji nee na ko na nga bëgg yàlla sa boroom alors léegi laaj bi mooy ni ndax foofu la wax ba yem déedéet seydina isa daf ca tegal waaja ne ko waaye ndigal boobu li muy foor foor yépp li muy eh, am kàttan yépp daa am boo xam ne boobu lay àndal ndigal boobu du wét ndigalu na nga bëgg yàlla sunu boroom ak sa xol mépp ak sa kàttan bépp ak sa ruu bépp du ndigal buy wéet boo ci ëpp moo ci gën a màgg waaye foo ko fekk rek am na ndigal bu koy wéttali ñu ne ko boobu ban la mu ne na nga bëgg doomu aadama bi yàlla sàkk ci melokaanam na nga ko bëgg comme ni nga bëggee sa bopp xam nga yow mi may déglu wax ni bëgg naa yàlla yomb na kenn ku nekk mën naa jóg mu ne man bëgg naa yàlla man bëgg naa yàlla man gëm naa sax ni su ma génnoon ci mbeddug ndakaaru yi ma def ku ma tasel ma nuyu la ne la waa sama waay wala sama jigéen ndax bëgg nga yàlla sunu borom boo mooy gëm naa ni nit ñi dañuy defe ne man wéruma waaw ndaxte pour ñoom lu loolu du laaj bien sûr que bëgg nañu yàlla nan nan la nan laa mën a laajee nit ndax bëgg nga yàlla waaye loolu dafa yomb loolu dafa yomb jóg rek yore sa làmmiñ bëgg naa yàlla bëgg naa yàlla déedéet seydina isaa yeesu krista mu ne ndigalu na nga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa xel mépp dafa am bu koy gunge saa su ne ñu ne ko boobu mooy ban mu ne na nga bëgg sa moroom na nga bëggee sa bopp waaw dafa am solo dafa am solo xam nga mbëggeelug yàlla ñun gisuñu yàlla gisuñu yàlla kon suñu bëggee yàlla mbëggeel boobu dafa am ci lu mu war a feeñ wala ci ku mu war a feeñ wax bi loolu la mbëggeel bi dafa war a am ci ku mu war a feeñ wala ci lu mu war a feeñ nee naa leen yàlla sunu boroom duñu sant mukk loo xam ne jiituwuñu ci moom ci boppam lépp lu mu ñu sant rek dafa fekk ne moom misaal na ko ba noppi xam nga bi muy wax bani Israël ndaxte euh, téere bi Seydina Isa Yesu Krista wax fi tudd fi téerewu yonent yàlla Musa la yàlla moo ko jox yonent yàlla Musa te ba mu koy jox yonent yàlla Musa bani Israël la moo taxoon téere ba jóg ci bu njëkk waaye bi yàlla di wax bani israel nekk leen na ngeen bëgg yàlla seen boroom ak seen xel mépp ak seen bakkan bépp ak seen kàttan mépp dafa fekkoon yàlla won leen firndewu mbëggeel bu jóge ci ñoom moom jëm ci ñoom waaw moom mooy ki leen fekk misira égypte génne leen fa ak kàttan boo xam ne xel manu koo daj moom mooy ki leen jox yoon bi nga xam ne leer kese la ngir ñu ciy gindeeku ngir mën a dund dund gu neex yàlla sunu borom moom mooy ki leen taxawu guddi ak bëccëg ñeent fukki at yi ñu def ci digg manding ba mu nekk fa ak ñoom guddi ak bëccëg di leen jox añ reer ndëkki di leen jox dàll yi ñu sol ak yëre yi ñu sol di leen aar ci mala yi ak defkatu ñaawteef ya te lenn nag waralu ko demaluñu ko fenn defaluñu ko dara lenn waralu ko lu dul mbëggeel bi nga xam ni moom la am jëmale ci ñoom yow mi may déglu nag amaana nga ne ma man de yàlla fekkuma misira génnewuma misira man defuma ñeen fukki at ci digg manding ba kon maag bani israel dañoo wuute amaana wax nga dëgg waaye ba nga juddoo ba tey jii yàlla may la kàttanu nga mën a toog di ma déglu mbëggeelug yàlla bés bu ne mu feeñ ci sa biir dund bés bu ne mooy ki la may nga màgg ba am at yi nga am mooy ki lay jox añ reer ndékki saa su ne même boo xalaatee sax ni yow yaay xëy di liggéeyi di fayeeku di ko def sa poos munoon na laa xañ liggéey boobu wér gi yaram bi nga am bay xëy di liggéeyi mooma xam-xam ba nga am bay liggéey liggéey booba ñu la koy fay mooma kàttan ba nga am bay man di dem di fa liggéey mooma te defaloo ko lenn nag lu jar mu la koy defal lu dul mbëggeel ak cofeel bi nga xam ni am na ko ci yow doomu aadama waaw kon boo tëddee di nelaw bët set nga yeewu war nga sant yàlla gërëm ko ci mbëggeelam ak cofeelam bi tax mu feddaliwaat dund ci sa biir dund ci sa ci yow waaw mbëggeel kese la na nga bëgg yàlla sa borom waaye na nga bëgg sa morom yàlla nee na nag mbëggeel boobu dafa war a fés ci bani aadama ni yow ndaxte nag lii dañ koo war a jàpp amul benn doomu aadama bu ñuy gis ci kaw suuf moo xam bu weex ba la wala bu ñuul ba la moo xam couleur ba mu manta am daa njool wala daa gàtt daa xees wala daa ñuul daa rëy wala daa tuuti te yàlla sunu boroom bindu ko ci melokaanam moom ci boppam ak doomu aadama bi nu mu manta mel ak fu mu manta jóge ak lu mu manta gëm ak lu mu manta topp yàlla sunu borom da koo bind ci melokaanam kon ormaal ko kon bëgg ko kon am ci moom cofeel mooy am ko ca ka ko bind te bind ko ci melokaanam moom ci boppam waaw loolu la ñu téere bu sell bi di wax yow manoo wax ni bëgg nga yàlla mi nga xam ne gisoo ko tegoo ko ay bët te bañ nag doomu aadama bi nga xam ni yàlla daf ko bind ci melokaanam moom ci boppam loolu ban façon mbëggeel mbëggeel ci téere bu sell bi ni mu ñu ko andilee du ci ay wax kese waaye ay jëf la ay jëf la xam nga téere bu sell bi daf ñuy wax ci benn bataaxal bu ñuy woo bi ñu bu korent bu njëkk saar fukk ak ñett daf ñuy wax ni man de su ma amoon alal yàlla mu ne yow bani aadama boo amoon alal ba kenn mënu koo wàññi te bés boo xëyee nga koy séddali doomu aadama yi bu dee mbëggeel lalu ko loolu du dara du tus boo bari woon xam-xam ba képp ku ñëw nga jàngal ko mu yéemu te xam-xam boobu mbëggee lalu ko yàlla nee na loolu du dara du tus ak nu sa daraja manta toll ak doomu aadama yi luñ la manta wékk bu dee mbëggeel nekkul ci sa biir xol mbëggeel lalu ko yàlla nee na loolu du dara du tus soxlaw ko ndaxte yàlla sunu boroom mbëggeel kese la te lépp lu muy def mbëggeel la ko lal te lépp lu ñuy def dafa bëgg mbëggeel lal ko ñu nit kon gis ngeen mbokk mi mbir mi du wax rek waaye ay jëf la waaye jëf bi day jëm ci doomu aadama yi ngir yàlla sunu borom mën a gis ni dëgg la ci suñ ci ci ñun kon dinañu taxaw tuuti ñu dégluwaat ay cant dellu si ngir tëj waxtaan bi غيرك يشفينا ما في صدري ساعة كل هالأوجاع لا ما في صدري ساعة كل هالأوجاع وعمري كله ضاع عصدرك غفيني بابا أنا عطشان من نهرك يرويني بابا أنا تعبان من غيرك يشفيني عمري ما انسى جميلة وكلام انجيلة عمري ما انسى جميلة وكلام انجيلة ارجع واصلي لك حكيك تحكيني بابا انا عطشان من نهرك رويني بابا انا تعبان من غيرك يشفيني
kon mbokk yi ñu wéy ci pàcc bu mujj ci li nga xam ne mooy sunu waxtaan mooy sunu waxtaan newoon naa leen téere bu sell bi daf ñu tënk ci mbëggeel daf ñu tënk ci cofeel alors bu dee dëgg dëgg nag bëgg nga yàlla sunu boroom yàlla nee na da ngay bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp xam nga boo bëggee sa bopp yéenewoo sa bopp dara lu ñaaw yéenewoo sa bopp dara lu bon déenewoo dara sa bopp loo xam ne safaanu jekk la rafet la yàlla nee na noonu nga war a mel sa diggante ak ki nga xam ne du sa du sa sa sa morom la xam nga waxtaan bi bu ñu jàngoon aaya yi ba ca kanam waa ji day laaj Seydina Isa ne ko waaw kan mooy sama morom comme loolu la ko Seydina Isa wax Seydina Isa tontu ko andil ko ab léebu mu ne ko dinaa la wax li dafa amoon bés benn waay yoo xam ni dëkkub samari la jóge ñu koy woowee samaritain mu jóge réewam di dem ay ay defkatu ñaawteef dal ci kawam làpp ko ba mu nooy jël la mu amoon yépp dem noonu mu am kilifa diine yu fa romb waaye taxawuñu mu am ñeneen ñu fa romb waaye taxawuñu waa ji nga xam ne nag moom la ñu làpp ngeen baal ma moom la ñu dóor ba mu nooy waa ji du samaritain waaye ka ko fa fekk ngir dimbali ko ngir jël ko yóbbu ko kooku mooy samaritain ba Seydina Isaa Yeesu Krista mu ne mbooloo ma ci seen gis-gis kan moo nekkoon moroomu waaja ñu ne ko samaritain ba mu ne wax ngeen dëgg xam nga nag dama bëgg pour nga mën a xam bu baax wax bi mooy dama bëgg nga xam ni ci jamono yooyu amul ku yawut yi gënoon a bañ ci àddina ku dul samaritain yi amuñu woon benn diggante ak ñoom dañ leen doon moytu bugguñu leen laal bugguñu leen jege ndaxte ngir ñoom ci seen gis-gis ñoom samaritain yooyu ñoo jaamukatu xërëm yi daanaka benn lañu waaye yàlla sunu borom mu ne kooku de samaritain la yéen da ngeen koy gis ni jaamukatu xërëm da ngeen koy gis nit nit koo xam ne yàlla bugg ko da ngeen koy gis ni nit nit koo xam ne xamul yàlla waaye yàlla mu ne man ci nit kooku laa bëgg ñu ne ko lu tax mu ne ndaxte la ma doon moom loolu la wone ñu ne ko loo doon mu ne man mbëggeel kese la te kooku mbëggeel la wone dégg ngeen wax tey nag dañu nekk ci jamono joo xam ni dafa jaxasoo doomu aadama yi dañuy wax xam nañu yàlla bëgg nañu yàlla waaye pare nañu ren di nit koo xam ni bokkuñu ak ñoom moom gis-gis pare nañu ren di nit koo xam ne bokkuñu ak moom jëmukaay pare nañu ngir ren di nit koo xam ne bokkuñu ak moom ngëm-ngëm loolu du yàlla yàlla du rey xamul kuy rey yàlla du boom xamul kuy boom ndaxte loolu rey boppam rek la ko jagleel jagleelu ko keneen kon saa yoo xoolee doomu aadama bi nga ne kii de yeyoo nañu rey ko ndaxte bokkuma ak moom jëmukaay kii de reyoo nañu rey ko yelloo nañu rey ko ndaxte bokkuma ak moom gis-gis kii de yelloo nañu rey ko ndaxte bokkuma ak moom li ñu gëm yàlla mu ne génn nga ca ña nga xam ne ñu ngi topp ay ndigalam te boo génnee ci ñiy topp ndigaluk yàlla yi bokkatoo ca mbooloowu yàlla ba parce que waa ji loolu la laaj Seydina Isa Yeesu Krista moom la mu ko laaj dafa leer daf ko ne ndigaluk yàlla yi ban moo ci gën a foor seydina isa yeesu krista ne ko ba ca gën a foor nga mooy nga bokk bëgg yàlla ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa kàttan bépp waaye du weet mukk ba muy àndal saa su ne mooy nga bëgg doomu aadama bi yàlla sàkk ci melokaanam na nga bëggee sa bopp loolu la ko seydina isa tontu waaye dama bëgg yow mbokk mii may déglu nga xam lii mooy que ni mbëggeel boobu yàlla bëgg ci bani aadama bani aadama munu ko waaw lu leer mbëggeel boobu yàlla bëgg ci bani aadama bani aadama manu ko lu dul yàlla ci boppam moo dugal loxoom ci dundam moo dugal loxoom ci xolam ngir def ci mbëggeel boobu loolu la téere bu sell bi wax yàlla sunu borom nee na ngir nga mën a am mbëggeel boobu ngir nga mën a am cofeel boobu di tax nga xam ne ki nga bokkalul ngëm ki nga bokkalul gis-gis ki nga bokkalul jëmukaay boo ko fekkee ci tolof-tolof ci coono yéene woo ko lenn lu dul mu dund yéene woo ko lenn lu dul lu baax lu sell lu jub ndax man yàlla nee na mbëggeel boobu pour nga am ko faw mu am fu ma jaar ak yow ñu ne ko fooy jaar ak ñoom mu ne faw seen xol mi nga xam ne bàkkaar daf ko tilimal seen xol bi nga xam ne bàkkaar daf ko dëgëral ni xeer man yàlla sa sa yàlla aji kàttan gi ma raxas xol boobu ba mu set ma nooyal ko ba mu nooy nipp ngir sama mbëggeel man caa dugg ñu ne ko yàlla loolu nan nga koy defee mu ne ko jaarale ko ci deretu Seydina Isa Yeesu Kirist xolub doomu aadama bàkkaar daf ko tilimal ba mu lëndëm kuruus dëgëral ko ba mu mel ni xeer bu dë bu wow koŋ looloo tax mbëggeelug yàlla boobu munul am ci moom looloo tax mu mën a tëral doomu aadama ni moom rendi ko looloo tax mu mën a xool doomu aadama ni moom ne kii ni ma ko bañee looloo tax mu mën a xool doomu aadama ni moom ne kii bu deewoon sax looloo gën jëfu bàkkaar la yàlla xamul lool ngir loolu deñ nag yàlla mu ne yabal naa seydina isaa yeesu krista ci àddina mu tuur deretam ngir ma mën a raxas ma mën a fóot xolug doomu aadama ak ruubug doomu aadama ba mu set wecc ma man ko nooyal ba mu mel ni yàpp mu ne bu boobaa nag man yàlla aji kàttan gi man maay jël sama mbëggeel ma roof ko ci xolug doomu aadama loolu la téere bu sell bi di wax ci téere bi ñu dippee rom waaw boo jaar jàngee aaya juróom ba saar juróom ba boo ko jàngee mu ne mbëggeelug yàlla mu ngi baawaan ci suñu biir xol jaarale ko ci xel mu sell mi nga xam ni moom lañu yàlla jox looloo tax yow mbokk mi may déglu fépp fu doomu aadama yi gisee taalibe seydina isaa yeesu krista lañ koy njëkk seedeel mooy ne xol ba laab na lañ koy njëkk a seedeel mooy ne borom mbëggeel la moo ne judduwaalewu ko déedéet judduwaalewu ko waaye yàlla sunu borom moo ko def te na mu ko defee daf ko jaarale ci deret bu sell bi Seydina Isa Tuur kon yow mbokk mi may déglu waxtu bi dab nañu dinañu taxaw fii waaye ma bëgg nga wéy di gëstu waxtaan boobu mu am laaj bii ma bëgg nga koy laaj sa bopp saa su ne mooy lan moo tax taalibe Seydina Isa Yeesu Krista yi ñu leen di seedeel xol bu laab ñu leen di seedeel mbëggeel alors que ña ca des dañuy am jafe-jafe pour àgg foofu tontu bi jox naa la ko ci biir waxtaan bi te boo ci bëggee am lu gën a leer man nga wéy di jokkoo ak ñun ci numéro de téléphone bii ma lay joxaat muy 77 074 35 35 ma baamtuwaat ko 77 074 35 35 kon mbokk mi maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla wàccee jàmmam ci sa biir dund ci sa biir dundum njaboot waaye mu wàccee ko ci biir réew mi jàppale kilifa yi fi nekk moo xam kilifa diine la moo xam kilifa politique la moo xam kilifa aada la yàlla jàppale ñu ba Sénégal mii nga xam ne ci la ñu dëkk bokk ko te mënuñu koo génn jàmm rek di fi am te ñu wéy di wéy di dund ci jàmm mbëggeelug yàlla di ñu gunge saa su ne ci darajay Seydina Isa Yeesu Krista amen
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàccee ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
إن